kaay yi ñu dool dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf amul benn yéenekaay bu nit xëy di xool te du fa fekk daanaka tiis wi mi yendoo fanaanoo ko mu di wàccub liggéey bu Serigne Pape Malick Sy suur soi jàppe ko jant bu soowe El Hadji Serigne Pape Malick Sy démb ci la wàccub liggéey Serigne Babacar Sy radiyallahu mi njëkk a doon xalifab Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu am caatam di Serigne Pape Malick Sy moo làqu démb ci alxames ji ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sowe ci Ndakaaru loolee boo xam ne ci ñetti fan yi ñu xalifa général des Tidianes ay waxtoom yu mujj ci kaw suuf ni mu ko dundee journal L'Observateur xëy ni ñu ko yeggee ca ga ca cité kër góor gi fa la juróom-ñett fukki at yu teg weer ci la tolloon bàyyi na ginnaaw benn soxna ak ñaari doom yu jigéen L'Observateur nañu am na ku leen wax ne li muy feebar yépp mbégteeg neex deret gi ko ñëpp xamee woon noone la nekkewoon ba xëy dem li koy firndeel kii waxtaan ak waa L'Observateur ne leen am na benn bés ki koy toggal ñëw di ko laaj ne ko sëriñ bi lan la ñuy togg ndékki sëriñ Pape Malick si ca neex deret ga di ko tooñ naan ko toggal aw ñay ngir ñëpp mën ca ndékki ba suur ci L'Observateur ba tey seede su daw yaram bàyyee ko ci khalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour muy wax naan ñëpp a ñàkk waaye mo moo ci raw ndax dee rek moo ko mënoon a tàqaleeg Pape Malick Serigne ci anam wu bette fu kërug diine nekk ci réew mi nag bokk nag waa teewaawoon tiisoowee mu di Touba Medina Baye Léona Niassène Thiénaba waa kër Maam Limaamu Laay jàngu bi ci réew mi ak famille omarienne ñoom ñëpp nee nañu ci seen kër rakk ci ñenn ñi ab confident la ñu journal L'Info mi information bi moom ni ñu nit ku dem na Soleil national ne ko tiijaan bu matoon sëkk ci bépp boor nag journal bi boole ko kàdduy njaal ak i seede yu bàyyee ko ci président de la république Macky muy seede ci sëriñ Pape Malick Sy mbaax ak yar gu mu ko xamal lise ko mel ne ku naan ko waxati ko Sénégal ngi sëgg sëngéem di jooy ku kenn munta natt ab dayoom démb ci la ñu ko jébbal boromam ma nga ñu denc ca njaddaxun fa magam ji sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum tëdd libération nañu tiwaawoon mi ngi jooy ki yore woon kàddoom vox populi bindal ñu ne kàddu gu neexoon te jaadu waroon te wóor far na wàcc porte parole tiwaawoon di sëriñ Pape Malick Sy noppalu le quotidien bind ne la voici c'est tu maanaam ki doon waxal waa kër Seydi Hadj Malick Sy noppi na ba faw enquête dina kay nañu faw mu miti xolub Tiwaawoon la ñu laal ci xol Serigne Pape Malick Sy moom Serigne Babacar Sy dem na ci juróom-ñett fukki at mi di dee su ko gaaw a fàtte rawatina bu xel demee ci coronavirus bi libération nañu jàngoro ji mi ngi rey rekk di dem ci réew mi démb am na keneen ko coronavirus bi faatate ci Sénégal téeméeri doomi aadama yu manqué juróom-benn moom la coronavirus bi rey ci réew mi bi mu fi duggee Sowetas journal bi nañu ten ak suñu moytuwul hôpital yi ci réew mi ci tuuru la ñu jëm ndax fees nañu dell jamono ji junniy doomi aadama ak benn ñoo nekk sous traitement maanaam ñoo nekk ci loxoy docteur yi di faju vox populi nañu coronavirus bi dugg na ci kasoy réew mi kaso bu kees gis nañu fab kaa corona mu di benn waay bu ñu fa mandat dépôt bu yàggul moom la ñu defali test gis ne dafa amee coronavirus journal l'observateur xëy ñu baaxi ñu yóbbu woon dem seen yoon bu weesoo tey jii dootuñu nekkalati kenn de garde ñooñee di étudiant septième année ak huitième année en médecine l'observateur nañu li leen mitti ba tax ñu bëgg a gedd dem seen yoon moo di li waa ministère de la santé ne duñu leen fay seeni prime de garde kan mooy garde ceebu Mansour Faye bi suur soi nañu am na lu ca xew ndax denrée alimentaire yi daf cee am lu ñu yoon ci poste de santé bu ñuy tabax ca Daaru Karim ga ca Touba jël caabi yi dénk ko benn waaye bu ñu naan Saliou Touré ba ñu dellusee ci la gis ne denrée alimentaire yi am na lu ca manqué ndekete waa ji Touré da caa jël 450 kilos yi ceeb 70 litres litre dëwlin 60 kiloy pâte alimentaire juróom fukki kiloy suukar ak téeméeri saabook ñeent fukk ñeent lépp la waa ji Touré jël yóbbu suur nañu ba ñu ko jàppee nangu na ne moo ko jël waaye nee na yaayam ak rakkam ju jigéen la ko jox ndax ñoom it dañoo war am seen wàll ci edd gi